nekk nag yaay nga woon sa ruq liggéey ci anam yi nga mënee ak fi nga mënee ngay góorgóorlu di liggéey le président de la république man wàlle wu ma féetoo depuis 2008 yàlla defoon na mu doon jàngale mathématique doon ko jàngale ci nasaraanu français doon ko jàngale ci nasaraanu anglais foofu la ma président nekkoon président assemblée nationale ñëwoon rencontre parents d'élèves ñu recevoir ko ci biir salle des professeurs musuma woon def politique keroog naa fas yéene def voir le président Macky Sall te ma yàlla xam na ne xamuma mais Macky Sall ko xam dafa humble moo xam ko xam dafa am vision keroog la taxaw na bés ni ki tey mosuma woon def politique waye dina def politique ci la wacce kaw nak du do jaran yaro fa ne bu dee politique nak moy jël ben pousso yokal sa askan defe naa jaleñ moom a gën a soxla Kaolack moom a gën a soxla ci laa wàccee Kaolack fii Aïdara mii moom ma sàmpal sama comité boobu ba legui nak maa ngi sama ruq di liggéey ci lu ma mënee ak lu ma mëneewul. politique boo ko bëggee def te intérêt personnel taxul da ngay jéem a xool yan coalition yan stratégie ngay teg pour liggéey bi gën a gaaw Modou Ndiaye dafa ma jot bu bi may mës toog ak yow di waxtaan une semaine rek la xamoon naa la ci say jëf waaye xam nga ma xam il une semaine laa la rencontré ñu waxtaan. keroog la xamné nit ko bax nga keroog la xam ko ku am vision nga ku yewen nga ku am yermane nga ci jami kon nak à partir d'aujourd'hui l'alliance est scellée entre Mounirou Ly et Modou Diarra Nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que Kaolack sorte de l'ornière ndaxte nak wiri wiri ak li wax yépp li am solo moy Kaolack des populations nous devons fédérer nos énergies

kon nag yal nañu yàlla jàppale ba ñu am ay xol yu rafet di jàppalante. di sant yàlla bu baax ci jotaayu tey bi jotaayu tey bi du dara lu dul njabootu président Macky sàll bu continuer di daje di gën a boole suñ xalaat yi ak suñ gis-gis yi pour ñu mën a def dara ci dëkk bii nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. fii ñu nekk tey muy Kaolack kenn ci ñun. munta dem def dara bàyyi sa morom il faut ñu nangu xam ci ne suñ bëggee noppal président Macky Sall noppal ko ci lépp fexe tamit bàyyi loo ko xel ci mu xam ne doomi Kaolack yi am na luñ bëggal Kaolack dañuy fexe ñun ñii ñu bëgg suñ bopp ba pare bëgg suñ bopp mooy boole suñ bopp. Muniru maa ngi lay wax ak yaag mboolem ñi nga ànd ak ne la maa ngi lay jotal. ndokkeel bu maître Nafissatou Diop am ngant moo tee mu fekkewul jotaay bi ca loolu wax naa la maa ngi lay jotal aussi député Awa Gueye moom itam yónnee na fi délégation moom itam wax naa la li tax teewul fii tey ak mboolem responsable yi nga xam ne yëpp bëggoon nañ fee teew ak ñi fi teew ñëpp maa ngi lay jotal seen ziar ak seen ndokkeel ak di la féliciter parce que lii il faut ñu xam ne non du Mouhamed Ndiaye sa président Macky Sall président Macky Sall la ñuy liggéeyal bu ñu waxee nag na ñun ñëpp kenn mooy suñu kilifa gisuma lu war a mën a tey ñu ànd ñun ñëpp nekk ci keppaaram ci am na fi lépp luñ soxla pour defar kaw Kaolack am na ñu fi capable ñoo xam ne bu ñu leen ko joxee ñu dofal ñooñu suñ dajee ñun ñëpp liñ bëgg a def dinañ ko def bu ku nekk jëlee benn làcc di ca bay rek tool bi mën naa booy bañ a booy ca gàcca la pour président ma Macky Sall bàyyi ñu xel fii ñun ñëpp ci kaw Kaolack dénk ñu tool ñuy xoola ba tool bi booy ci suñuy loxo loolu gàcca